بسم الله وبالرسول محل قديمي جاجفي خادم santati jot na seede ko jot na xalifa bi nee na jaajëfe xaadim jaajëfe xaadim juróomi fan la di yiwu yàlla jaajëfe xaadim juróomi fan la di yiwu yàlla alxayru juróom la jaajëfe xaadim seddem malaaka doy na liggéey ba jeex na njàqare jeex na mbégte ma yaana jaajëfe xaadim maanaam raqib ak abdit abdit di ñaari malaaka yooyu lu ñu sedda doy na te ay sedda lañ ci mhm. moo tax ma ne liggéey ba jeex na mhm. njàqare jeex na mbégte ma yaana jaajëfe xaadim mhm. tuubaa aw yiw la juróomi xoroof la mooy mbàkke bal la jaajëfe xaadim soldaari Bamba yeyoo ngeen cant yu général bi te ci xaadim <laughs> li ngeen def rëy na juróomi fan la mel na ni tey la jaajëfe xaadim xalifa bi nee na ndigal sar na kon dégg ngeen a jaajëfe xaadim war ngeen sant ku yoroon bant te newul woon patt naan jaajëfe xaadim <laughs>